coow bu metti moo daal di am gannaaw bu ñu bari doon waajal dem julli ji seeni dëkk gannaaw bu ñu yokkee njëg yi lu jëm ci wàllum transport bi ministre bi di El Malick Ndiaye daal di fay indi oto Dakar dem dikk yi ngir rek ñu daal di ñoo yóbbu kiliyen yi li ni mel metti woon bu baax a baax yi les chauffeurs. man jàpp naa ne njuumte gu rëy la ndax mu dikk am na ay lignes interurbaines. quant à Babi Car yëpp dugal ko biir booru marché man ànduma ci. da di la mais tegul fenn parce que gare routière boo veree privé la. jaay doole la jaay doole kese la du leneen. moom ministre bi jotoon amal benn visite foofee ca gare boo maraîcher ca Pikine bis boobee la daal di woon xamle ni dina def li mën ngir rek gare routière yi nga xamante ni nekkuñ ci yoon ñu mun leen fay jëlee ba képp kuy jël oto di voyager nga mun koo ñëw defee ci biir gaaru routière bi loole nag góoraxuma di ko si fekk si. mooy jaadu man loolu d'accord naa clandestin clandestin la te nous sommes dans un organisation boobu nag bàyyiwul kenn gaaru routière officielle yi yi état bi fa la ñëpp war a départ oto bu départ ñu recensé ña fa dugg ba xam bis bu set xam ne tant de personnes ko transporté nañ ko mais loolu mooy organisation. weeru juillet bi lañ fa yéene amal ay waxtaan yu yaatu yaatu jëmale si wàllum transport li ni mel nag ñu jàpp nii mooy nekk li nga xamante ni nii mooy tax ñu saafara. dem beeg dikk bi fii ci Sénégal dina tax ñu daal di fixer njëg li ci benn prix. comme ñoom ñun wu ñoom ñoo organiser il faut venir avec les termes de référence termes de référence yooyu ñu indi nag dañ ñu ko présenté luñ ci ànd ñu ànd ci luñ ci àndul ñuy def contre proposition mais pour les l'instant ñun bu ñu amee proposition mënaguñoo wax lenn parce que xamaguñu lan la terme de référence yi di génne. jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllum transport bi fii ci Sénégal jur coow bu baax a baax li ni mel nag faral di indi xiiroog ngaayo diggante chauffeur yi ak clients yi.